pare ah. beneen bi mooy euh, xeex bu metti bi démb am euh, siège pour APR ay militants euh, yu bokk ci Amadou Ba mhm. ñeneen ñi bokk ci Abdoulaye Diouf Sarr ñu mhm. fi nekkoon lu ministre de la santé mhm. ñu ne nag ñoom ñaar ñooñee bi mbir yi amee ba pare dañoo daal di génn bàyyi fa ñi nga xam ne ñoom ñooy militants yi xam nañu toll ci jamono tànn jamono bu ñuy xool kan mooy wutu président Macky Sall. Mm-hmm. boobu léegi tur yaa ngi fuité ñu naan tam Moustapha Niass mu ngi euh, consulter mm-hmm. ñenn ñi nga xam ne jàpp nañu ne daal ñoom ñoo bokk yenn saa yi nga dégg Boun yenn saa yi nga dégg Abdoulaye Daouda Diallo parfois nga dégg Amadou Ba parfois nga dégg kii mais ñu gis ne daal fi ñu nekkoon di waxtaan euh, moom le premier ministre jotul sax wax. Mm-hmm. mais Diouf sax wax nañu jékki-jékki rek dégg ay. Euh, Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Diouf Sarr ñu leen di ak acclamé di eh, wax daal foofu la lañu gis ne daal ca mboxoo am na ay pompe à gaz daal di fay génn ñu koy waxee rek jàng yi daal di tas ku fi nekk di xool li nga xam noonu ngay demee. mais pompe à su mu génn ça veut dire que c'est préparé. waaw mais mais lii lii bu ko waxee gis nga. Mhm. Euh, tey ku ci nekk xam nga un homme d'état. Mhm. ñoom bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu yàq li ñu am. xam nga tane bu wasaawee mënatoo seet loo gis. Mm. lu nekk dafa am limite. Mm. tey euh, euh, da ngay gis ña ci ñoom muy Amadou Ba muy Diouf Sarr mosoo leen dégg ñu taxaw wax ay kàddu yu ñaaw wala ñu def li nga xam ne moom mooy prôner la violence. Mm-hmm. donc doom ndaw ndaw yi nga xam ne ñoo tënk ci seen ginnaaw. Mm-hmm. dañoo waxoon xool ci loolu. Mm-hmm. parce que li ñu def démb affaire sauvage la. sauvage ñooy nekk ci àll bi di xeex di dóorante ak yooyu. Mhm. politique laajul lii dañoo toll ci jamono boo xam nekkatuñu ci politique yoo xam dañuy sànnante ay chaise yi da ko doon gis bu yàgg. Mhm. ñuy gis yeneen yeneen violence tey bu ñu dee ba ñoom ñi nga xam ne président jeexal na. Mhm. dem dem bu rafet ci anam bu rafet. booy day dem ba tey. ñu ne ñi ngi tànn kan la ñu war a fal pour mu muutu ko. donc ñoom ñoo war a defaral kooku parce que bu ñu commencé nii nit ñi ni ñuy génnee ci ñoom dañuy gën a génn ci ñoom. responsabilité lañ ci am en fait. non mais mais leader yi est-ce ñoom ñoo santaane tam. Hmm. bala ñuy am responsabilité day fekk euh, jàppoo ni lalla selon toi que ni leader yi tamit am nañ ci part de responsabilité parce que seen i militants lañ mënoo leen nag joxoñ baaraamatuma parce que fekkee fu ñuy waxee mais man dama jàpp ni fu pompe à gaz lu ñu préparé la ne nañ dem au fa dara amee on. ah mais mais mais est-ce que xam nga lii nii procureur ci ay ndaw xamoo ndax am na ku feebar wala wala koo xam ne mën na am crise ak yooyu lii wax naa ne c'est des trucs de sauvage ak noo ko mënti waxee parce que toll nañ foo xam ne nit yi ndaw ñi yi def politique war nañu mën a am ay débat d'idées toog ci plateau yi fii di xool ban leader la ñu àndal ñuy wax ay bilan wam di xool lan la mën a apporter Sénégalais yi mais mënoo dem di xeex xuloo sànnante chaise gaañante yow nga da nga bëgg réew mi mais kenn du la ko jox. réew mi de te violence aussi du lu baax en du lu baax à chaque fois ngeen di prôner violence te kuy ku nekk ci politique en fait nga nekk leader ànd ak ay nit je dirais pas que ki euh, ki jiitu moo def le le problème mais man su ma demee di ànd ak ay nit former di ànd ak ay nit di liggéey ak ñoom. am na benn retenue boo xamante ni dama leen koy wax da di ànd ak man da ngeen di suivre sama idéologie man doxuma ci violence pacifique lay doxee ci démocratie la ñu nekk wax bu rafet communication dafa important mais pas d'insolence pas de violence loolu moo tax nga mën a jël nguur loolu moo tax jeunesse jox la bopp d'accord mais je pense que en tant que premier ministre muy Amadou Ba mën nañu ko déglu moom itam moo wax parce que c'est le représentant du euh, du président ci biir euh, euh, euh, wu en tant que premier ministre si mën nañ ko mën nañ ko déglu woon mu wax wala mënoon nañu sax xool jëm je parle pas de ki war a ut président man je parle pas ki war a utu parce que ça ça sa les intéresse mais ki ma war a wax mooy. en tant que premier ministre qui est présent. ñu wormaal ko ministre bi muy Amadou Ba déglu ko mu wax après nag boo leen génnee les bruits de couloir la neex ngeen def. mais mais jox ko cër boobu waroon nañ ko ko jox mais xam naa ne ko nee naa la première fois ñu yuuxu Amadou Ba. Mhm. ci siège bu bu bu bu Bokk Yaakaar. ok c'est pas la première fois. mosoon na am ci période koor gi fekk première dame. Mhm. doon fa ñëw. Mhm. donc gis nga euh, tey bi fi xam président nekku fi. Mhm. Amadou Ba moo ko représenté bi Lyon yi di dem Kigali moom moo leen jox drapeau donc il représente. il représente quelque chose. voilà micro bi. mu ngi tàkk nga baat soxna day sew. donc il représente quelque chose. donc tey bu bu fekkee ñëw na rek war nañ ko mën a déglu. Mhm. bu Diouf Sarr ñëwee war nañ ko mën a déglu mhm. keneen nag keneen war nañ ko mën a déglu yaa ngi gis am na benn image buy daw malheureusement foog naa ne mun ñu ko am mhm. ah, muy Mbaye Ndiaye bi fi nekkoon Mbaye Ndiaye am na benn xale boo xam ne daf ko bitti loxo nii parce que mi ngi wax muy perturbé donc yow fekkee sa ay leader yi nga xam ne Mbaye Ndiaye moo bitti loxo Mbaye Ndiaye moo bitti loxo xale bi parce que xale bi day perturbé bien sûr mag de mag bu telloo ci niveau boobu rek ça veut dire am na lu ko metti am na lu ko metti donc tey ñi nga xam ne yow ñoo ñooy assalé bu fekkee respecté woo leen yow mënoo respecté beneen sénégalais parce que comportement. dafa nekk lu am solo que mu nekk ci politique walla mu nekk ci leneen li am démb APR lu ñaaw la. je pense moom moo jiitu. je pense que euh, euh, aussi bu bu ñu defee ñoom nii ah kaay mën nañoo ragal. parce que ñoom gars yi waxaguñ dara Macky dana du bokk rek xuloo bi commencé judd. waaw mais xam nga foog wax nañ ko fii. Mhm. à chaque fois soo ko waxee peut-être que ne dafa am ñoo xam ne dañu bëgg dëgg nañ ko dégg. Mhm. mais am na xam ne wax bi du leen neex. Mhm. nee naa lu tax président togg moment bi muy soogaa wax ne bokkuma. parce que xam na njaboot gi muy yore. am na benn moment boo xam ne bu ko waxoon. dara dootul dox moo tax mu xaar à quelques mois des élections soo gaa mën a wax ne bokkuma boo xoon ni affaire tas na bu yàgg te gis li am nii day gën a jëm kanam pour ñu toog ni ñoom rassemblé wu di waxtaan. trouver consensus nekkatul lu yomb. jeex na. Euh, yaa ngi jeexagul boo jógee ci loolu ñu ñëw ci Ismaïla Madior Fall. lu mhm. garde de Sceaux mi nga xam ne dafa demander le retrait yàlla yàgg bëri de la modification de l' article 85 de la constitution mi nga xam ne assemblée nationale waxoon nañu ne loi boobu dañu ko bëgg euh, voté bu ko defee président couplé élection yeeg li nga xam ne mooy législative yi. bi ñu gisee nag yëf yi euh, commencé na am coow ñu daal di euh, bind ab bataaxal moom Ismaïla Madior fal confirmé effectivement que ne euh, projet de loi bi dinañu ko retirer. Mhm. ci nu mu gën a gaawee comme da ngaa bëgg ñu tënk ko bu ñu jógee ci loolu ñu dem directement. Euh, ci El Malick Ndiaye mi yore communication bu PASTEF. Mhm. ñëpp xam nañu ne dafa amoon na euh, ñaari retour de parquet démb. Mhm. ginnaaw bi ñu ko jàppee pour nécessité d' enquête. ñu jékki-jékki gis ne déféré nañ ko devant le parquet image moom moo nekk noonu ñu ne nag euh, le parquet moom ci réquisitoire introductif bi nga xam ne daat na koy def dafa solliciter à ce que ñu ubbi information judiciaire maanaam yóbbu ko instruction infraction yi nga xam ne ñu ngi koy viser à l'encontre de El Malick Ndiaye bokk na ci diffusion de fausses nouvelle acte de ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique euh, gravement wax nañu ne nag audio yi am na kenn ku def euh, benn entretien ak euh, Pape Alé wax authenticité yi daal di ne moom moom moo def audio yi du El Malick mais loolu yëpp gis nañu ne daal taxul moom euh, procureur mu jàpp ci fi nga xam foofu la jàppoon audio ñu ngi fàttali ne bi ñu waxee dañu voté loi bi à l'Assemblée nationale dañu gis benn voix bu ñu ne El Malick moom moo doon wax ñu ne daal nañu dem centre ville attaqué yenn bërëb bi ak yooyu ci loolee lañ ko jàppee waaye ñun ñu xamal ne tam Ah, dañ ko doon laaj téléphone portable am ak yenn numéro am mais moom daal dafa bañ ah, lu parquet requiert ñu koy waxee rek ma mandat de dépôt tey daal ci lay leer. ci lay dem. Mhm. dem na ba pare kañ. doy na waar ah, mandat de de dépôt moom dafa mujj parce que boo xoolee at bii nii sax mandat baatu mandat de dépôt. yow lii di yow doog a nii. waaw léegi a mhm. du du parce que man gisuma ni sax euh, El Hadj Malick Ndiaye moom moo wax audio yi en fait du ma du ma si du ma ko mënee gëmee noonu parce que moom il est responsable aussi tamit chaque jour day faral toog si média yi gisuma ni su demee ba war a wax genre wax yooyu noonu. di ko dugal si ay ay whatsapp yooyu donc am na pos am na possibilité parce que moom am na page facebook te dañ koy suivre et puis am na possibilité dem si plateau yi toog donc pour man bu fekkoon dafa am mu war a wax du ko du ko jaarale si ay audio quoi pour man Malick surtout audio yi ni ñu ko waxee ak li ñu wax man pour man euh, dayoo Malick romb na foofu nag vraiment quoi dayoo Malick romb na foofu cool merci beaucoup kontaan naa ci yow. waaw ah, ah, jeexagul jeexagul de lan la ci loo ciy teg. jeexagul de. jeexagul. Mm. wala dañu koy may. damaa bëggoon waa Abu Thioubalo ñu waxtaan. Mm. <laughs> ok merci beaucoup merci beaucoup pour les mais loolu info du jour la yow ñun info du jour wax mais yow li nga wax nii du info du jour info barki démb la du caduc. waaw ah, d' accord du caduc ok. genre information xam ne sa xarit lañu. <laughs> merci beaucoup merci beaucoup Godel pour les infos du jour on enchaîne directement la région avec li nga xam ne moo di fait divers avant ñu dem people